salam salam te dañoo ñëw pour ñu waxtaan ci situation Ousmane Sonko jamono ji nag Ousmane Sonko dañ été arrêté depuis le vendredi 28 juillet Il ngi en garde à vue pour sept chefs d'accusation selon le procureur Ousmane Sonko nag ñu ngi koy jàppee ci buntu këram ginnaaw ba mu jàppante benn gendarme bu ko doon ci lañ ko jël yóbbu ko tribunal procureur bi nee Ousmane Sonko ñoo ngi koy toppee trouble à l'ordre public participation à une manifestation non autorisée organisation de mouvements insurrectionnels incitation à l'insurrection association de malfaiteurs complicité d'incendie volontaire et destruction de biens d'autrui ginnaaw bañ ko jàppee Ousmane Sonko dafa décidé de faire def grève de la faim à partir de dimanche loolu la ñu xamal à travers une publication ci page Facebook am ci message bi de moo ngi encourager détenus politiques yépp ñu joindre ko la grève de la faim lan mooy seen xalaat si mbir mi Ousmane Sonko liñ ko toppee dëgg la am am déet jox leen ñu seen xalaat si commentaire yi.